ngi leen di nuyu di leen ziar yéen ñëpp di leen jox seen wàccuwaay salaam salaam les patriotes salaam les combattants xeexkat yi jàmbari góor yi ndaw yi réew mi yéen lay waxal ndaw yi Sénégal ëllëgu Sénégal yaakaaru Sénégal yéen lay waxal yéen ñi nekk ci terrain bi di xeex waxuma ñuy toog di déglu yéen waa Sénégal ndaw ñi xale yi nekk ci terrain bi di xeex yéen lay waxal salaamaaleykum salaamaaleykum partagé leen ko ma wax ak yéen. nañ ko partagé ñu wax ak ñoom ñu wax ak ñoom ñu wax ak gone yi ñu wax ak jàmbaar yi góor yàlla yi ñu nekk yéen ñu nekk yéen ñu nekk yéen ñu nekk yéen ñu nekk yéen du duñu bàyyi ñoo ko diggaale ñoo ko wax don de soi pour la patrie la ñu wax réew mi day baax ci nii wala réew mi yàqu ba faw baax ba faw wala yàqu ba faw waaw ñoo ko diggaale gor ca wax ja gor ca wax ja gor ca wax ja amul dellu ginnaaw ay ca ay ca ay ca ay ca ay ca ay ca ay ca ay ca ay ca partagé leen mu yaatu na yaatu na yaatu ma wax ak les combattants yi nekk ci terrain bi waaw am na ñuy daanu am na ñu ñuy rey waaye dara du tax ñu dellu ginnaaw Macky Sall na rey na rey ñëpp waaw su ma nee rey ñëpp toog xayrun su ko mënul dañ koy rey toog waaye duñ ko bokk ak moom réew mi c'est fini duñ ko bokk ak moom daf ñuy rey ba ñu jeex jël réew mi moom la ko boppam wala ñu rey ko jël réew mi bokk ko na leer partagé partagé partagé partagé partagé mu yaatu ñu partagé ko mu yaatu mu yaatu mu yaatu mu yaatu mu yaatu mu yaatu mu yaatu man ak yéen waxoon naa leen ko picc ak peer amul dellu ginnaaw amul xoqatal amul rey nit amul force spéciale amul terrorisme amul tout ça on s'en fout de tout ça on est en guerre waxoon naa leen ko nous sommes en guerre nous allons vers une guerre civile préparez-vous su ngeen xeexee daañu dal ci seen kaw su ngeen xeexul dinañ leen fekk seen kër yi jàpp leen dugal ci kaso boo leen ngeen rey leen nit nag bu fekkee dafa toll foo xam ne bu bëree ñu bëree ak moom su bëreewul ñu dal bëre dal ci kawam da ngay jóg bëre voilà di jaajëfal waa Casamance spécialement waa Bignona ñu ngi leen di jaajëfal yéen Sénégal bu naree baax ëllëg li ëpp ci ñuy joxe seen bakkan pour Sénégal baax Bignona lay jóge ndax Macky Sall nee na ku dëkk Casamance dama lay rey dafa am haine contre la Casamance dafa bañ waa Casamance bañ Ousmane Sonko bañ Guy Marius Sagna bañ képp ku dëkk Casamance ndax gor ñi nekk Casamance ñiy xeex ñi ngi Casamance ñiy joxe seen bakkan ñi ngi Casamance bu ñu waree xeex Ousmane Sonko Guy Marius Sagna ñooy jóg bu ñuy amee ñu dee Casamance joge ñuy jógee Bignona Oussouye wala Ziguinchor toujours c'est comme ça inventé wu ma dara néew ma diw a gën kii kenn ku nekk sa jikko la ñuy waxal ñiy xeex ñi ngi leen di tudd ñi xeexul kenn du leen tudd ñiy xeex ngir dëgg xam nañ leen ci réew mi yëkkatiwuma waa sud di ko teg waa nord yëkkatiwuma waa est di ko teg waa ouest yëkkatiwuma waa ci kaw di ci li nga def lañuy wax ku am njàmbaare ñu wax sa njàmbaare ku am yaafuus ñu wax sa yaafuus waa kajo rek bawol ak njàmbur ay yaafuus lañ pour l'instant nangu wuñoo xeex waa ndar macha allah saint louis yow leen góor di woo waa Louga te xam naa duñu ñëw Louga mësuñoo xeex Kolda mësuñoo xeex waa Sédhiou sax jéemu nañu léegi ñi ngi jóg di xeex waa Mbour woo naa leen gisuma leen lànk nañu ne du xeex baax na waa Mbour pare naa ci ñoom ne nañ duñu xeex ñoom ok waaye waa Saint Louis jaajëf waa Kër Massar di féliciter le maire de Kër Massar Mohamed Diatta le maire de Kër Massar góoru yàlla Ousmane Sonko ñu mel noonu la soxla nit boo ànd ak moom mu amul fit war na ne damay xeex ndax pare ngeen ngeen ne ko pare nga monsieur Diatta le maire de Kër Massar ma loolu laa gëm soxla wuñu ay costume cravate def ay littérature yu dul jeex def ay texte ki formule français guddali sikki nekk di wane ne man cadre laa yu kenn xamul parti Pastef du parti cadre parti baykat la parti wu parti wu nappkat parti wu xeexkat projet bi Pastef yanu am yambar du ci bokk projet la boo xam ne dañu soxla ku mën a wax tuuti ku mën a bind tubaab tuuti ku mën a costume tuuti waaye kuy altéré wu ba am doole nekk wuyu parti bandi la war a nekk ndax li ñu yanu bu ñu wuyuwul bandi yi wàcce ko ci suuf toog na xujju xujjooral nekk ci réseaux sociaux yi yi di mbeppi mbeppi guddeeg bëccëg mel ne ay piccum xaax ak piccum seko soxla wuñu lool ñun soxla mooy ñu mel ne maire Kër bi Mohamed Diatta boobu li ñu soxla mooy Guy Marius Sagna li ñu soxla mooy ay Dame Mbodj li ñu soxla mooy ay Cheikh Omar Diagne ñii ma leen di wax ñëpp bokkuñu Pastef ñi jege Ousmane Sonko di xëccoo ay poste di reyante lekkante seen biir du ñoom ñooy sauver Ousmane Sonko du ñoom ñooy yóbbu projet bi fi ñu bëgg projet bi ay bandi la soxla ay ñoo xam ne dañuy am fit jaamaarloog Macky Sall xeex ak ñoom comme ni ko waa Bignona defee comme ni ko waa comme ni ko waa Sédhiou comme ni ko waa saint comme ni ko waa Kër Massar comme ni ko Dakar nekkee en train de def nii bloqué Sénégal gépp ba fenn du dem waxoon naa leen ko bés bu nekk ma répété leen ko Sénégal gépp bloqué wu lu a tàkk na tàkk bu oto daw bu kenn dem bu kenn dikk on est en guerre contre dictature du am ci réew mi man maa leen wax loolu xanaa ma dee na gën a metti biñ joon na ñi ngi leen di jaajëfal di jaale la famille bi nga xam ne mooy la famille de Korkaba bi nga xam ne moom la ñu rey c'est un jàmbar c'est un patriote il est mort pourquoi démb bi may live mi ngi may déglu wóor nga ma démb bi may live mi ngi déglu sama live tey maa ngi live ruugaa nga bar sàq yow mii di ma déglu bu subaa mën naa am dooma dégg mën naa am nga dee dee gi nag ajiwul ci xeex dee gi ajiwul nga xeex ajiwul nga toog sa kër am na ñoo xam ne kii seen kër la ñu dee am na ñoo xam ne bal perdu moo leen rey waaye moom de ma nga deewee ca toolu xare ba ban xare xare ba ñuy xaree pour dëgg taxaw xare ba nga xam ne dañu fay tax pour bu ëllëgee ñu ne dëgg taxaw na ban dëgg dëggu yàlla bi mooy ban dëggu yamale moom karuka ba ca xare boobu la dee àjjana la jëm directement incha allahu rabbi daañu ko ñaanal yàlla yàlla tabal ko dëgg la dee façon dee yooyu ñoo ma saf ndax ay patriote lañ mënuñoo ñàkk bañ a dee damay dee da ngay dee yow mi may déglu tapet bi yow mi may déglu da dee yow a dee dee ci kaw lal ak dee ci sa kaw jabar di nappaaji ak lekk sa ceebu jën naan sa attaaya yooyu ngeen bëgg yéen waaye bëggu leen deewu jàmbaar dee gi Sonko bëgg mooy xeex ngir sa dëkk baax dee gi nga xam ne moom la fukki ndaw ñeen juróom dee y'a deux ans dee gi nga xam ne moom la tey ji korka ba dee ci lan xeex dëgg pour dëgg taxaw ci gën dama leen di woo pour ngeen jog ñu taxaw xeex na Sénégal gépp boy na Sénégal gépp taxaw ñu arrêté Macky Sall ndax jeexal na ba pare lamatul guddi ak bëccëg day tëdd di guddi di yuuxu moo tax muy génn naan day tuur nekk di wan nit ñi ne moom xel mi da wérul dafa feebar xel mi dem na te dafa commencé dof parce que mi ngi ñàkk nguur gi ñi ngi pëyi pëyi fu ne ñu ngi fay dugg jóg leen taxaw ñu àggale xeex bi mu jeex jóg leen taxaw amul bëccëg amul guddi amul seddal na Sénégal gépp bloqué wu bu kenn dem bu kenn dig policiers yi ak gendarmerie yi waxoon naa leen ko bu ñu jógee di xeex xeexuñoo ak policier xeexuñoo ak gendarmerie xeexuñoo ak ñoom de dama bëgg ngeen déglu ma waxoon naa ko maa ngi koy waxaat ñi ñuy xeexal mooy ñi sàcc suñu alal ay Farba Ngom Macky Sall doomi Macky Sall jabaru Macky Sall Mansour Faye Mame Mbaye Niang euh, Suzanne Camara bi ne nañ rey Ousmane Sonko Alioune Sall Antoine Diome Dior Diagne ak ñi nekk ci gouvernement bi ñëpp di wax ñoom laay saw ak képp ku sal lan la ñu rëy Youssou Ndour mi yor TFM El Hadj Ndiaye ñoom ñi ànd ak moom ñoom yaa xambay bay liste bi xam ngeen ko ñooñu ñooy suñuy noon jóg leen ñu xeex ak ñooñu du police mooy suñu noon police yi amuñu lu ñu lekk ay baadoolo lañ du gendarme yi ñooy suñu noonu amuñu lu ñu lekk gis ngeen fa ñu dëkk mook tàggum picc ñoo yem seen kër gi nekk frontière gis ngeen ko seen caserne boobu ku ñu fa may ndox doo ko naan ay doomeraam lañu amuñu lu ñu lekk ñu nag ñoom yem mais dañ leen di utiliser di leen dóor ci suñu kaw yërëm leen leen bu leen leen faale ñoom nag ñoo ñuy attaqué nanguma ngeen attaqué leen ñun ñi ñu war a attaqué mooy ñu nekk ci réew mi sàcc àll réew mi am na ci ay sëriñ am na ci ay politiciens xàmmee ngeen leen ñu jóg ut suñu ay yet ut suñu ay fetal ut lépp loo xam ne ñoom dañ ñu koy dóor ñu dóor leen ko nangu suñu alal nangu réew mi police bu dox suñu diggante ñoom nag bëgg ñoo faagaagal nag ñu jaamaar loo ak yow mais dóor police taxu ñoo jóg dóor gendarme taxu ñoo jóg sànnantee xeer ki police rek daw du xeex bi xeex bi mooy ciblé kër Mansour Faye Ndar dem taal ko dem bango fa mu dëkk génn coffre fort ba fa nekk ay milliards ñu taal ko loolu mooy cible bi jàpp Mansour Faye takk ko ba mu kii ñu taal ab sémb sànni ko ci biir fekk yaayu Mariam Faye ak Mariam Faye ak ay doomam ñu taal sédd ba mu tàkk ñu sànni leen ci biir sànni ci Mariam Faye Sall sànni ci Amadou Sall sànni ci Farba Ngom sànni ci Abdoulaye Daouda Diallo sànni ci Amadou Ba sànni ci Antoine Diome Dior Diagne ci Farba Ngom sànni ci Mame Mbaye Niang ci kepp ku bokk ak ñoom ñooñu ñooy suñu ay noon ndax ñoo sàcc suñu alal toog ki kaw réew ne kenn du ko wax ku ko wax ñu jàpp tëj ku ko wax ñu jàpp rey bu leen jaawale xeex bi bàyyi leen di jaawale xeex limay wax déggu leen ko parce que suma ma gisee ngeen xeex dama naan ñii laaj ma def démb pour lan la vous les soldats sur le terrain c'est votre commandant en chef qui vous parle yéen soldat si jàmbaar yi kat yi nekk ci terrain bi di xeex seen commandant en chef seen commandant de guerre mooy wax ak yéen naka ngeen war a xeexee moo leen jox ay stratégie wax leen ñan ngeen war a attaquer bàyyi leen policier bàyyi leen gendarme bu leen toppatoo nervi yi lu dul lu dul lu dul ngeen jóg di song ñi téye réew mi ñi leen di jox ay ordre mooy ministre yi DG yi sëriñ si ñenn ñi sàcc yi xam nga ñooñu ay Ahmed Khalifa Niass ak yi ay euh, Moustapha Sy papa doomu junior nga xam ne moom baayam taxaw na fii junior ne ko wotalu Abdou Diouf imbécile nga baayam ma nga ca barsàq dafa taxaw saaga ndey Sénégal yëpp ko wotalu Abdou Diouf imbécile nga moo ko jur moo tax bu taxawee naan duma wax ak un vulgaire violeur duñu ko tontu dañuy xam ne kéwal du tëb doom di bët Abdoulaye Wade moo ne woon gone bu la tooñee da koy jéggi dem ca baay ba duma ko duñu wax ak moom baayam la ñuy waxal moom mi nga xam ne Souleymane Jules Diop moo taxawoon fi Souleymane Jules Diop du samay wax moo ko wax bu ma kenn yóbbu ko yaama di wax ne baayam moom Moustapha Sy boobu da daan naanandoo whisky ak baayu Jean Paul ak baayu Barthélémy Diaz Jean Paul Diaz na tontu Souleymane Jules Diop mi ko to mi ko wax loolu kooku ay waxam safuñu taluñu ñu moom mooy wax naan Ousmane Sonko c'est un vulgaire violeur moom na xool ba xam naka la ko baayam juree moom Moustapha Sy moom na dem toppatoo nu ko baayam juree moom ak fan la jógee moom son Sonko amul baay buy naan whisky Ousmane Sonko amul baay buy taxaw naan ku wotalul Abdou Diouf imbécile nga Ousmane Sonko amul baay boo xam ne lu ñu mas a dagale ci jumaay Tiwaawan ji pour àggale ko mu ne ko fuux ko Sonko amul baay bu daan dugg ci palais bi ñu di ko jox ay maletu millions ak milliards muy xëm Ousmane Sonko amul boobu baay noble la doomi xaraam ji doon yow Moustapha Sy ma la ko wax man ak ne doon doo dara li nga seq ak Aziz Ndiaye jaay ko drogue ak cocaïne nag xam naa ko naa ci ñëw ci sa dossier spécial lu Aziz Ndiaye nekk. Aziz Ndiaye promoteur de lutte trafiquant de drogue de cocaïne ak de d'engrais ak lépp luy njublang Aziz Ndiaye moo Moustapha Sy boobu ñoo ko seq dóor marto mooy seen liggéey dinaa ci ñëw dossier spécial doomi xaraam yi nga doon da nga xam ne daal Ousmane Sonko la gën moo gën sa ngir gépp yow xamoo lu ñuy xeex nga toog ay doomi raam wër la nga daa taxaw naan ay vulgaire vieux la doomi xaraam da ngaa xam noo juddoo yow ku sa bàyyi di naan whisky da ngaa xam noo juddoo loolu du débat bi daañu ci ñëwaat dégg nga de may wax yéen les patriotes les Bignona, Oussouy, Ziguinchor, Sédiou, Goudomp, Goudomp ak bunkilin Kolda duñu xeex ay làppato lañ Kolda làppato lañ Louga làppato lañ njaareem ñi ngi xeex waa Mbàkke ngi raak guddi ak bëccëg waa Touba sax a ngi xeex macha allah Touba moom du ma leen soññ ndax xam naa yéen xam ngeen mën xam Touba moom dañuy xeex Mbàkke dañuy xeex Louga kay moo dul xeex du xeex Euh, euh, Kolda duñu xeex moom ñoom boolewuma leen ci ay làppatu lañ ñii xeex Kédougou maa ngi leen di soññ dégguma leen Kédougou waa Thiès moom Thiès moom léegi ay góor jigéen lañ waa Thiès ay góor jigéen lañ Thiès ba ma xamoon cette ville rebelle cette ville nga xam ne Abdou Diouf dañu ko ba mais Abdou jouf dafa taxaw cees di lox kees waaye jàpp waaye nag du keesu du làppatu yi góor jigéen ñi de kees ga ma doon wax mooy kees bu njëkk ga ñooñee nag léegi ñoo taxaw ñoom màggat nañu wala seen doom yi ñoom juruñu seen i doom li ma lay wax rek kenn ku nekk doo jur sa doom bu ku nekk doon jur sa doom kon kon adduna bi jeex na bu yàgg kees démb ga keesu Babacar Sall keesu ablay Wade ga kees ga taxawoon na Abdou Diouf da ngay wàcc par force ba Abdou Diouf taxaw fa mer gum leen mere ba saaga leen keesu rebel googu kees googu amatul ay yambar rek a nekk kees léegi yambar kese waaw li ko waral mooy parti Pastef Birame Souleye nekk fa waroon a jóg taxaw nekk coordinateur coordinateur départemental de Pastef nekk député maire de Pastef nekk nekk nekk nekk am personnalité bu mag ci parti bi tout ça mënul fexe ba mobiliser Thiès tey jii ba Thiès ñu jóg taxaw di xeex ndax lan ragal pouvoir ragal sa place poste bi ngay liggéeyee inspecteur impôt bi nga nekk say salaire say avantage yooyu nga a ñàkk ba doo jël benn risque pour taxaw comme Ousmane Sonko ko jëlee Ousmane Sonko dafa jël ko Ousmane Sonko bu defoon ni ngeen def Biram Bassirou Diomaye yeen ñi nekk ci bi passé fi yépp tok a ñak seen ay poste ak seen place su ko Ousmane Sonko defoon passé du agsi fi su doon hésiter na no li su mako waxe waxee Macky Sall li lii wëru ma wax risque yoy mu jël mo indi parti bi tay fi yeen ngeen and ak mom ne du ngeen jël ben risque dina ci ñew bu ñu ci li pour l'instant dañu nekk en guerre mënu ma jël débat bi diko tek ci passé passé life ay life spécial bu ñu ci li may wax yeen patriotique bu leen leen déglu ñoom buñ ko déglu kenn ñu ngi toog nag di communiquer bu leen liir leen leen déglu ñoom waa Pastef da ma déglu man nii ak ayot maay wax ak yéen maay seen commandant en chef nous sommes en guerre te ku amul fitu wax toogal fële du ay communiqué yu ñuy signé ay bureau politique bureau politique n'existe pas on ne connaît pas le bureau politique jël leen seen responsabilité Bassirou Diomaye Birame ak keneen ak keneen ak keneen ngeen comme ni ñuy waxee génn wax li leen ci fekk ngeen xam ne fekk na leen ci comme ni ko Ousmane Sonko di defee mun leen a ànd ak as gor su am fit ba noppi nekk ay mboq topp ci ginnaawam di xaar bu falu ngeen joog jaaxaan jël seen i jeeg nappaaje loolu du fi am on ne vous lâchera pas c'est terminé nous sommes des militants nous sommes des sympathisants nous sommes une conscience tranquille une conscience boo xam ne duñu leen bàyyi mukk ngeen nax ñu ni ñu Ablaye Wade naxee Macky Sall naxee ñu ko Abdou Diouf kenn dootuñu nax seen tànk suñu tànk ndax dañoo am télé ci poche. dégg ngeen de may wax ne actuellement nii ñoom Macky Sall dañu nekk en rupture de lacrymogène ci yenn zone yi du yëpp Dakar fa lañ concentré seen force yëpp moo tax xeex bi Dakar lay gën a mais comme dañu concentré seen oto yi Dakar concentré seen moyens yi Dakar concentré seen lacrymogène yi Dakar yéen waa Dakar li ngeen war a def mooy teg stratégie boo xam ne lacrymogène yi da ngeen koy mën a dékku ay masque wala lépp loo xam ne bu ngeen ko takkee gazu lacrymogène yi wàññeeku parce que lacrymogène yi bandi lañ jënd pour mën a asphyxier nit ñi mais loolu dañ ciy génn du dara on s'en fout ñi nga xam ne ñoo nekk ci région yi te bari wuñu matériel ci région yi gis nga Mansour Faye ba nekk ndar gis nga Mansour fay xam ngeen moo nekk ndar gis ngeen ndar matériel bañ fa waaye parce que Mansour fay ba fa nekk moom la ñuy préparé pour jox ko réew mi après Macky Sall moo tax gis nga ni ñuy armée Dakar di aar Dakar parce que Macky Sall la fa nekk noonu la Mariam Faye Sall joxe ay ordre Moussa Fall jox ko ordre euh, Antoine Diome pour que ñu jël oto yi nga xam ne ñoo am Dakar matériel roulant yi nekk Dakar moom la ñu affecté Saint-Louis fa nga xam ne Mansour Faye moo fa nekk maire pour ñu xeex ak ñay xeex ak ñoom foofee matériel boobu amul Jurbel matériel boobu amul Ziguinchor matériel boobu amul Kolda yóbbuwuñ ko fenn parce que ñoom Marème Faye ak jëkkëram Macky Sall fu ñu nekk foofu la ñuy aar comme ñi ngi Dakar ñu aar ko seen frère Mansour Faye nekk Ndar ñu aar Ndar même dispositif de riposte bi nekk Dakar Mansour Faye ak Antoine Diome Antoine Diome ak euh, Moussa Fall bi ngi def Dakar moom lañ yóbbu Ndar mais du tee waa Ndar xeex du tee waa université Gaston Berger xeex du tee ñëpp génn xeex ndax Ndar googu kat. ndar googu foofu la ñeenoo woon Serigne Touba yóbbu foofu la gouverneur bi toogoon di buuma ko bummi su ngeen mënta xeex ñu sampal leen pont Faidherbe bi tey ñu sampal leen Mansour Faye Mansour Faye ñëw au lieu que mu nekk sëtu Serigne Touba xeexal Serigne Touba Mansour Faye lànk na moom sëtu Faidherbe bi lay nekk ci ndar day ñëw jaay leen doole noot leen comme ne Faidherbe bi nootee woon seen maam yi moom Mansour fay day ñëw toog ci seen kaw ndax lan Macky Sall moo yor réew mi ku yëngoo mu duma waa ndar génn leen geen xeex yéen a ngi xeex mais xeex bi gën a metti na xeex bi gën a tar ndar yëpp bloqué leen ko Louga du ñuy xeex dama leen tëb ma ñëw Tiwaawan ñëw cees war ngeen a génn xeex Dakar waxuma a seeni wax waa Kër Massar maa ngi leen di félicité ñu nekk ci VDN 3 bi maa ngi leen di félicité ñu nekk ci autoroute bi maa ngi leen di félicité ci route de Yoff bi maa ngi leen di félicité route de Rufisque bi maa ngi leen di félicité euh, Ila Touba bi il faut que ñu xool yan pexe lañ ciy def autoroute à péage bi lii lépp nag waxuma ay benn pneu yu oto yi teggi de bu ñuy xasee bay def blocage blocus dara wut dem dara wut dikk loolu mooy blocus ñu téye réew mi une semaine deux semaines yoo xam ne kenn du liggéeyi kenn du dem kenn du dikk lépp na teg am nañu yeneen ay plan d'action yu ñuy préparé ci suuf du ma ko wax fii dañuy xeex de dañu am planning de d'action boo xam ne sur différents aspects ak différentes plateformes ak ay cibles yu baree bare bari yoo xam ne dañuy xeex te Macky Sall dina xam ne dañuy xeex on est en guerre contre sa dictature il faut que mu leer day leer de bu ngeen arrêté xeex bi yéen ñëpp lay jàpp rey benn par benn lu leer laa leen wax bu ñu ko xasee ba tàmbali kenn du ko bàyyi Ousmane Sonko avertir na leen waxoon na leen ko waxoon naa leen ko ñëpp wax nañ leen ko ab guerre boo ko xasee ba déclaré da koy gañe waaye ko tàmbali ab guerre ñu dem ba ci biir nga naan damaa sonn nag damay naan ndox damaa ragal damay làqatu ji fooy làqatu tàmbali nga ko ba noppi bañ xàmmee la xeex rek ñu rey la wala nga reyaat waaye boo ko bëtalee wala nga tëbal ko wala nga da nga koy bàyyi gis ngeen ñi ko jot a bàyyi dañ fekk ci seen kër ya ci kër yi lañ fekk génne leen du ngeen mucc xanaa ngeen xaru kenn du ci mucc kon boo toogee sa kër ñu fekk si la jàpp la damay xeex jàpp-jàpp rek la waaye waaye damay xeex yi gis ngeen vidéo bi gis ngeen korka ni ñu ko reyee bal lañu ko dóor teel ci bopp bal lañu ko dóor ci bopp bal lañu ko dóor ci dënd xoma ci bopp teel mu dee ndokk metti na waaye du ñu tax a dellu ginnaaw loolu lépp pour lan nañu rey kenn bu ñu reyee kenn ñëpp dellu ginnaaw parce que loolu mooy stratégie bi xam naa leen ñoom ni ñuy doxalee dañ naan yëf yi cëkk na attention bu ñu bëggee noppalu ñu jël benn bakkan bu ñu jëlee benn bakkan ay mboqat lañu bu ñu reyee kenn ñëpp daw. loolu mooy stratégie bi seen QG bi nga xam ne fa la taxaw seen PC sécurité mooy seen poste de contrôle sécurité bi Moussa Fall Antoine Diome Macky Sall ak Marième Faye Sall ñoom ñi nga xam ne ñoom ñooy piloté les opérations di joxe ordre yi bu ñu demee ba mu tàng ba dang dañ naan rayal benn rayal ñaar comme ça ñëpp daw bu dee amee rek bu deree turé ñëpp daw te xamuñu ne léegi ndaw ñi dañoo gis nga ñun dee ji bu mu leen tiital metti na ci xool mais dañu nekk guerre gis nga soldat buy buy buy bu ñu rayee kenn ci moom du fa taxaw di ko xool parce que noonu daa ngi ci ginnaaw boo fa nekkee di jooy ak di xool ak di ko yëkkati noonu bi dala fay fekk yow boom la comme ni boomee kenn bu ñu bu ñu bal kenn boo ko da ngay gaaw avancé troupe bi nañu avancé suñu suñu suñu patriote la dee dañ koo ñaanal mais duñ fa nekk di dañuy avancé pourquoi parce que li ñuy xeex bàyyi nañu bàyyi gëstu nañu bàyyi xol yi tooy yi nañu bàyyi dégg nga maam di bëtt bëtt yi ko jooy Ousmane Sonko nee na soxlawuma kuy jooy soxlawuma kuy bëtt ay bët borom mi fit laa soxla ñaan yi dégg nañ ko doy na waaye li ñu soxla mooy kuy xeex ku ci soldat bu ci daanu nañu avancé ñeneen ñu gérer ko ñun on avance on est en guerre kenn du nekk ci guerre sab non nekk sa ginnaaw nga yox yoxi naan dañ ma rayal kii rek bët say bët jooy fa la lay fekk da la tëll bal mu nekk ñaari dee au lieu mu nekk benn nga daw yow fexe ba noot ko waaye fa ngay taxaw di layam layam yi ba mu fekk la fa yow ka ngay jooy mu boole la ci muy ñaari ñu dee bàyyi leen dafa am nu ñuy guerre il faut ngeen dem lii di seen jour guerre dafa am nu ñu koy defee stratégie moo koy def xel tactique ak rapidité metina mais man mi di wax ak yéen dee gi metina ma mais fi mu sama xol bi dafa wow parce que dama nekk ci xex man seen ëllëg doom seen i ëllëg la ñuy sàmm loolu moo ëpp benn bakkan ñaari bakkan bakkan yi nag benn waru cee rot dañ ko war a sàmm waaye bu mënta ñàkk ba daanu day daanu parce que li ñu bëgg mu rëy mooy Sénégal gu jag Sénégal gu moom boppam Sénégal goo xam ne kenn du ko wax lii ngay jàng lii ngay lekk fii ngay dem boo bëggee visa boo bëggee tukki il faut nga am visa lu tax ndax bu ngeen doyee tukki am visa te seen réew mi ku jot duggu ko Sénégal googu la ñuy xeex Sénégal googu ay bakkan di ki rot ngeen di tiit ay bakkan di ki rot ngeen di joy te yeen ngeen bëgg di tukki dama ko ñëw comme ni tuba bi wàccee Sénégal du am visa yeen fu ngeen dem ci aduna bi ñoom lan kenn mën leena may visa mën leena dem fenn lepp ñu xañ leen ko ñuy xex pour loolu taxaw ci réew mi ba képp ku ngeen visa ñun la visa ku bëgg ku dugg ci réew mi da ngay ut visa comme ni ñu defee si ñu teg ñu teg la ko loolu la Ousmane Sonko di xool loolu mooy souveraineté mooy mom sa bopp moom sa alal moom sa koom-koom lu la àdduna bi teg nga teg len ko lu ñu la wàcce nga wàcce leen ko ñu ànd ànd ndawle ànd ngor loolu ngeen foog ne lu koy maye ay waxi kese moo koy maye toog sa kër moo koy maye ak bëtt say bët du jooy bu kenn dee nga jooy loolu du ko maye France seenu jàmm dee ko maye Amérique dañoo xeex ba dee Chine dañoo xeex ba dee Pakistan jamono bi may wax ak yéen ñi actuellement Pakistan léegi laa jógee wax ak benn pakistanais bu ma benn xarit paas ñuy wax mu ne ma Pakistan ña ngay xeex premier ministre ba ni ñu bëgg a def Ousmane Sonko lañ ko bëgg a te dafa populaire comme Ousmane Sonko réew ma ñoo génn ñëpp taxaw policiers yi ñoo dañ ko yóbbu ñu ne fi jóge teg seen i cocktail molotov seen i lacrymogène ut seen lance-pierre you xamna ay bi lañ ci def bi bu leer xam ngeen bu leer bi lañu jël def ko ci lance-pierre yi ko ci auto police ci pare-brise tel ci daw Pakistan ñoo ñu upp ay Pakistan c'est un pays nucléaire Pakistan dañu am bombe nucléaire est-ce que xam ngeen Pakistan li ñu ci ay armes Pakistan amul asaka ji fofu bombe nucléaire am bañ bëgg dal ci ko premier ministre bi ndax opposant la ko ko ci juge bi ne nañ ko jëli dañoo jàpp policiers yi dóor leen taal seen oto yi lakk leen ba juge bi ne nañ ko bàyyi pourquoi yéen mënu leen ko te ku leen na pakistanais yi moo leen gën ngeen saaga ko tey ku leen na pakistanais ñoo leen gën a nekk ay patriote ngeen mere te pourtant la ñuy def yéen du ko def pourquoi lu tax damay laaj foofu la xeex bi nekk foofu la secret bi nekk secret bi nekkul ci ay ñaan secret bi nekkatul ci ay sëriñ ndax sëriñ amul ci réew mi yàgg naa leen koo wax mën leen fii mafia politique maraboutiques moo yàgg naa ko wax ngeen may saaga tey nee naa leen samay wax jalu muus la wallahi azim ba keroog ñuy wàcc ba keroog jant bi wàcc may am dëgg ci yéen teel leen maa gëm teel maa déglu teel a topp samay wax ak li ma leen digal ngeen di ko def billahi bu ngeen ko deful da ngeen torox fii torox fële li ma leen di wax yépp seen jàmm la li ma leen yéene yépp moom laa yéene sama bopp li ma leen di wax dara du ko dindi mafia moo nekk ci réew mi ab système mafia maçonnique bu gëmul dara boo xam ne ay sëriñ ñoo nekk ci biir système franc maçonnique bi bokk kook ay politique di leen nax ci turu yàlla boo xam ne gëmuñu yàlla jigéen la ñu gëm xaalis sexe drogue ak cocaïne ñoom ñëpp na ñu ci ëpp bokk yàgg ko wax ñu gis nag lu leer nañ jóg di riir jëm ci réew mi Ousmane Sonko jiitu ko ndaw ñëpp ànd ci ñu tiit ne kii nañ ko faagaagal politique bi ko mara bu bi nag bu ñu ko bàyyi mu jàll ndax ñi bis bu ñu jógee rek ñun ñu ñàkk suñu ay avantage suñu ay privilège mooy sëriñ bi toog muy dox politicien bi naxaate jël alal réew di ko ci sédd ñu nappaage seen i jeeg lépp nag loo gis ñu di ko dagale ci xaalis sàcc gi ci réew mi ray gi ci réew mi complot bi sëriñ sëg yëpp xam nga lu ko waral jigéen bu xees lupp jigéen bu xees képp lañu boo ko toppee ba mu jeex ci kaw jigéen lañ koy sotti jigéen mooy yàq réew mi jigéen sëy nappaaje guddeeg bëccëg lépp seen àdduna yi yaakaar na sëy la sëy jigéen njaaloo guddeeg ci lañ nekk ñu leen xeex ci nii xeex leen ci ne ngeen rey benn bu dëkk bi njoon nag fukk yu dëkk Casamance ci yem kenn du tegg suñu tànk lii may wax nag bu ma paree ngeen dem tëddi de bu ngeen demee tëddi bàyyi wàcce seen tànk naan dañoo sonn nag dañuy noppalu noppalu amu fi policiers ñu leen gën a sonn fuuf gendarmerie ñoo leen gën a sonn fuuf wax nañ ma ko ci seen biir am naa ci ay antenne nee nañ ma continuer leen xeex bi ñun ñoo leen gën a dee ñoo leen gën a sonn waaye bu ngeen bàyyee ñu dem noppalu ñu su ngeen jógaatee ñu ñu jóg leen ñun dañuy wax jóg leen toog leen mais buñ demee ba sonn dootuñu jógati te coono bi war a tax ñun police yi ak gendarmerie yi ñu jóg mooy yéen a ko war a def yéen a war a continuer xeex bi bañ koo dakkal mu nekk xeex boo xam ne guddi ak bëccëg réew yëpp arrêté wu lacrymogène yi jeex fetal du jóg su ko defee ñun ñu noppalu parce que ñun tamit dañoo sonn lekk ñu naanuñu policiers yi ak gendarmerie yi ñoo gën a jéppi ministres yi ñi leen jox ordre yi ak Macky ñoo leen gën a jéppi fuuf mais yéen a bi war a def àgg pour que xeex bi le cas de Mbathi Mbodj décédé par overdose Mati Mbodj boobu ngay wax bi muy dee ci overdose immeuble bi mu nekkoon sur l'avenue Ponty moom ak benn marabu ñoo fa nekkoon wala boog benn porte parole benn xalif général Mati Mbodj bii ngay wax bi muy dee ci overdose ci kanamu porte parole benn xalif général ci biir réew mi ñoo fa nekkoon di xëcc seen cocaïne def seen yu bon te il est porte parole de xalif général dans ce pays ngeen ñu ngi topp ñaan leen lii di wax ju kenn xamul ngeen gëm leen duñu dara. ci cocaïne bi lañu nekk ak ci caga ji guddi overdose sexe drogue ak cocaïne la république de rock and roll ñoom ñëpp xam naa ci li ñu nekk waaw Mati mbooj boobu bi muy dee ci overdose ci cocaïne ba muy dee immeuble ba mu nekkoon sur l'avenue Ponty euh, porte parole marabu euh, xaalis ba fa nekkoon ma nga toog ñu teg seen i cocaïne di xëcc di di di sëy def seen i loolu moo tax ñu étouffer dossier boobu loolu moo tax enquête bi du aboutir loolu moo tax duñ ci jàpp kenn. parce que dafa am ay responsable c'est un système mafieux ñoo bokk seen i caga seddoo alal réew mi xëcc seen i cocaïne jël seen i avion dem bitim réew bu ñu feebaree ñu dugal leen ci ay avion privé yóbbu leen ci hôpital tubaab bi ñu faju tabaxal leen seen i kër jox leen ay milliards duy seen magasin yi ceeb ba fees seen i gàmmoo ki màggal lépp di leen fekk si ñu ne seen i caga di nappaaje xale bu jóg ñu ne lii sëñ Touba lee Alaaji Malick lii yàlla nee kër kër waaye waaw ñun suñu programme nag ñun kenn du ci wax ñoom seeni programme mi ngi dox ñun suñu programme ñu di ko xeex ñu itam dëmm ñu leen fekk fi ñu toog ngàdd leen ay yet ñoom ñëpp benn par benn waaw xam nañ li xew kenn dootuñu nax dañoo yeewu léegi nax ngeen ñi ba tey nax gi day dakk lii may def nag dama koy def pour yéen ñi nekk terrain bi di xeex yéen laa jaajëfal yéen ma tax di wax yéen ma tax di son maa ngi seen ginnaaw maa ngi seen kanam maa ngi seen ndeyjoor maa ngi seen càmmoñ maa ngi yéen ñoo ànd fu ngeen nekk ci xeex bi dana seen xel dem ci man seen commandant mooy wax ak yéen bàyyiwuma leen fenn di profito d'ailleurs ci live bi di wax jiji nañu gën a takku gën a préparé wu yéen waa diaspora bi yéen laay woo dama bëgg ngeen gën a góorgóorlu doonte góorgóorlu ngeen lu bare bare bare yéen a ngi jàpp ci xeex bi booba ba léegi Ousmane Sonko patriote lu ñu wax yéen a ngi def waaye tey lañ gën a soxla seen taxawaay tey lañ gën a soxla seen participation tey lañ gën a soxla ki seen liggéey ndax dafa am ñu ma woon na ma akayitoon ah, mu ne mu ma il faut que nga woote ci diaspora bi ma ne ko ci lan mu ne ma ngeen jàpp ci gaa yi nga xam ne ñooy xeex dañuy am jafe-jafe ci gaañu gaañu wala ñu jàpp leen yóbbu kaso wala ay avocat wala lekk wala ñu tëdd ci kaso bi mu ne ma defal live comme gaa yaa ngi lay déglu nga woo diaspora ñu am ñoom nu ñuy jàppee ci xeex bi mooy ku ci mën a génne dara génne ko ngeen dajale ko xool famille ñi nga xam ne ñoom la ñuy jàpp nekk ci kaso yi ak ñiy xeex ci terrain bi soxla ndox soxla lu ñu lekk ak kuñ ci jàpp ak avocat yaak yooyu yëpp ñu mën di ko financer bañ koo bàyyeeg parti bañ koo bàyyeeg kenn yéen diaspora bi loolu lañ leen war a sase lu mat ñetti nit yu bokkul ñoom moo wax ma lii te ñaar ñi ñu ngi ci biir kaso bi ñaar ñi ma wax lii ñu ngi ci biir prison bi wallahi azim ñoo mën a il faut que nga taxaw ci woo diaspora bi ñoom it ñu jàppale xeex bi parce que dafay motiver xale yi day tax ñiy xeex xam ne ñoom kat lii ñuy xeex buñ ci amee ndogal wala lenn fekk leen ci duñ ci wéet dana am ñu leen jàppale te dañu war a am solidarité loolu mooy dëgg léeg-léeg nga gis koo xam ne ndeysaan mi ngi xeex mais buñ ko jàppee bu yóbbu ko kaso mbokkam yi amuñu sax paas bu ñu jëlee paas pour dem fekk ko ci kaso bi waxatu laa di ko yóbbu lekk moo tax may woo diaspora bi ngeen contribuer woo jiji ak keneen ku ngeen mën a woo koo xam ne am na sécurité ñu sécuriser ko ku ci nekk def ci loo mën parce que guerre du sànni xeer rek de ak nekk ci lakk de mosam bi de boo dawee daw ba yàgg da ngay bëgg mbuusu ndox moo naan wala bitogu ndox moo naan xaalis lay jar boo demee ba sonn il faut nga taxaw lekk xaalis lay jar boo ci gaañoo am góom il faut nga dem hôpital xaalis lay jar buñ la ci jàppee il faut nga am avocat xaalis boo nekkee kaso il faut ngay lekk naan sa mbokk du ñëw loolu lépp xaalis a koy def kon xeex bi tamit dafa laaj ay moyens du wax rek ak na ñëpp génn na ñëpp génn diaspora bi toog na waaye nañ dem xeex yi Sénégal du ñëpp diaspora ngeen yuuxu mere waa Sénégal mais nag attention bu leen yaakaar ne yéen tamit bokku leen ci wax rek nañu jël suñu loxo Sénégal yi Sénégal xeex jóg leen ngi découragé ku nekk yaa wax lu nekk découragé waaye buñ ñëwee dugal sa loxo ci sa poos yow mi nga xam ne yow noonu loolu la ci xeex bi parce que ki nga naan na xeex Sénégal mi ngi xeex ci terrain bi waaye yow mi ko daan na xeex na bar na bar na mag daanu yow yow kenn wu la nga xeex terrain bi parce que nekkul ci terrain bi waaye sa loxo la ngay am ci gaspara bi France États-Unis Canada fa nga nekk la ngay am def ko ci ko taabal ji pour effort de guerre ñu jàppale leen ko nga taxaw lem sa loxo wëlbati ko yaa fi dàq wax yaa fi dàq soo ñëwaate yaa fi dàq woote acca acca acca acca waaye buñ ne dañoo war a parce que xale yi dañoo soxla essence dañu soxla carburant ndox carburant la dañoo soxla dañu soxla yu baree bari yoo xam ne dañ koy soxla pour naan xale yi dañu soxla carburant dañu soxla essence pour naan dañ soxla ndox dañ soxla mobilité dañ soxla am ay oto dañuy déplacé wu lépp dañuy soxla essence parce que dañuy déplacé wu am ay moto dañ soxla ndox pour naan dañ soxla dañ soxla dañ soxla yu bari pële yi ngeen xale yi di ko taal dañ soxla essence pour yoo xam ne mënu ma ko wax fii war ngeen ko xam waaw junni doy na borom xel dofu leen kenn ku ci nekk ci yéen xam ngeen bu baax lii seen intérêt mais nag est ce problème bi bu ngeen ko financé wul ke ci prison bi ñun jàpp ca kaso ba ñoo ma ñoo def ay audio yónnee ma ko maa ngi audio yi ñu ne ma gis nga diaspora bi yéen bu ngeen génnewul xaalis jàpp ci xeex bi xeex bi dañ koy ñàkk yéen diaspora bi lañ ma wax yéen a mën a sauver xeex bi du du waa Pastef yéen diaspora bi yéen a mën a organiser wu Akhenaton nga jiite ko ngeen ànd ak Jiji ngeen orienté xale yi ñu xeex ngeen financé leen directement bu leen wax ak benn membre Pastef parce que ñoom xeexuñu ci ñu nekk ci kaso bi ñoo ma ko wax ñett ñaar ñaa ngi ci kaso bi kenn kaa ngi ci biti ñoo ma wax li tax te yëgante wuñu kon loolu dëgg la bokk na ci tax may woot maa ngi woo diaspora bi dama ne woon duutuma wootee du ma laajati kenn xaalis sama yoon nekkatu ci parce que am na loo xam ne nit ki wut a toog ñu koy xaar ñu ko ko woo am na loo xam ne mais nag dañ maa yedd dama nag non bu fekkee da ngaa am position ci xeex bi am looy wax nit ñi di la déglu nit ñi di la suivre mënoo bàyyi mënoo gedd waaw donte am nga lu la naqari il faut nga muñ ko xam na yow li ngay def moomatoo ko du say mbir mbiru ñëpp la kon soo waree woote wooteel soo waree laaj laajal donte li nga bëgg doo ko am xay na waaye waxal rek parce que nit ñi dañ lay yaakaar ñu bari fi mu toll ni ñu ngi ci xeex bi ku ci am problème ku lay jox lekk an say mbokk taxawu loolu dafa baax ci xeex parce que même armée suñuy xeex ah dañuy taxaw soldat si ba nga xam ne ku ci am blessé ñu taxaw la say mbokk yooyu yëpp dafa baax ci moral ñuy xeex ñuy xeex da loolu dañuy dëfal day tax ñu gën a sawar day tax ñu gën a taxaw day tax ñu gën a am arñe pour jëlee fi Macky Sall kon ngeen diaspora bi bu ngeen bëggee li ngeen bëgg te xeex bi gaaw ñu jëlee fi Macky Sall dugal leen seen loxo yi seen poche waxuma ay un euro ki deux euro deux dollars waxuma loolu de na ngeen bàyyi nag nay gi joxe sëriñ joxe ngénte joxe ordonnance joxe dépense Sénégal mën ngeen ko loolu waaye nañ def ci Sénégal Sénégal moom yéenewu leen ko dara waaye seen mbokk yi seen xew-xew yi seen gàmm yi seen cant yeeg siit yeeg yooyu mën ngeen mën ngeen cee def ba lépp def ci waaye buñ nee nañu xeexal Sénégal xeexal leen xeexal seen njariñ pour yéen diaspora bi bu Macky Sall daanoo Ousmane ko jël réew mi ngeen mën a ñibbi ndax am na lu nekk ci réew ne ku ne mën na dund dund gu yell loolu la ñuy xeex bu ngeen ci mënta def seen dërëm na mooy parewu leen pour ñibbi de waaw ah, jël leen li ngeen di yónnee ngeen woo jiji am ngeen numéro jiji jiji mooy banquier bi moom mooy financier bi Moi, xam nga moom famille Rothschild def fa li fay def woo ko xam na lim war def gérer logistique bi man logistique ah communication bi stratégie orientation mise en œuvre plan d'action logistique bi m'occupe pas de ça ko def après ci stratégie underground boo xam stratégie nag ko wax ci la def ci suuf bokkul ak li ñuy def ci kaw loolu il faut ngeen xam ko nangul ñu ko voilà di jaajëfal ñu nekk ci prison yi patriotes yi combattants yi kenn du yéen yéen bi Ousmane Sonko ne don de soi pour la patrie ci Pastef yéen yéen a ko jëmmal yéen ñu nekk ci kaso yi yéen yéenay les premiers patriotes yéenay les vrais patriotes yéen yéen a jóg taxaw ba dugg kaso yéen a jóg taxaw ba dee yéen yéen a symboliser le don de soi pour la patrie kenn mën leen a fay yéen a ma man yéen a man ñëpp man man man nangu naa ko man yéen a ma man man dama koy nangu réew ma yéen a ma man yéen ma gën a jàmbaar moo tax ma ne taxaw nekk ci ginnaaw di fexe ba ngeen am dam fexe ba dara bañ leen na metti fexe ba même bu ngeen nekkee ci kaso yi ñu fekk leen fa taxaw leen dàmp leen ba ngeen am fit ba bu ngeen génnee ñu kenn neex ñu ko ne xeex bi waaw yéen yéen a ko symboliser yéen patriotes yi nekk ci kaso bi yéen ñiy xeex kenn du yéen jaaleen jëf ay jàmbaan ngeen ay góor yàlla ngeen yéen tey bu tubaab bi duggoon Sénégal ne day nangu Sénégal takk ñu jaam da ngeen jóg gëm naa ne yéen bokku ngeen ci ñuy défendre Sénégal bu armée bi demoon ba lot ci noonu bu dugg ci réew mi bëgg ñoo takk bu mu jàmm armée bi lot police bi lot gendarmerie bi lot ñu ne ah il faut ñu jël ci askan wi ñoo xam ne dañuy taxaw nekk ay soldats comme keroog ba général de Gaulle taxawee le 18 juin 1940 ne France bisu ko noot France lot armée ba lot ñëpp lot général de Gaulle dafa woo ñëpp ne commerçant bi jaaykatu jën bi baykat bi chauffeur de taxi bi chauffeur de bus bi pilote bi commerçant bi fépp fu nekk yéen ñëpp léegi ay soldat ngeen jóg leen ngeen taxaw engagé wu ngir ngeen taxawu seenum réewu France bu ko kenn noot ñëpp engagé wu kenn ku nekk ci ni nga mën médecin bi engagé wu di faj ki mën a togg di togg di nit ñi ñuy lekk ki mën a dàmp di dàmp ki mën a dawal taxi di digal nit ñi di leen dugal clandestinement ci oto di leen yóbbu ci front bi ñuy xeex kenn ku saxaar gi kenn ku ci nekk di dans l'effort de guerre kenn ku ci nekk patriotisme boobu tubaab bi am ba tabax réewam lu tax yéen sénégalais yi mën leen ko am dama leen damay laaj pourquoi parce que da ngeen peut-être kenn ku leen orienté amul leen benn leader bu nekk ci kanam ne leen cap acu ñu dem comme ni général de Gaulle taxawoon xëy na loolu xëy na mën ngeen am ci man mii je ne suis pas prétentieux j'ai pas dit que je suis le général de Gaulle mais au moins maa ngi jéem fexe ba orienté leen ci jamono boo xam ne ñëpp ngi a taxaw diaspora bi tamit am na ñu fi nekk kenn ku nekk na nga jël sa responsabilité taxaw parce que am na loo xam ne xëy na ñu nekk ci biir réew mi mënatuñ ko ñu nekk ci bitim réew ñoo ko man kon yéen ñu nekk ci bitim réew jël leen seen responsabilité ngeen nekk ay commandant en chef jiite troupe bi ñu xeex mobiliser les efforts de guerre les moyens de guerre l'argent le matériel la logistique lépp ñu mobiliser ko mu dem ñu xeex ak suñu ay parce que nous ne sommes plus dans un état de droit nous sommes dans un état vaillou où le droit la loi ne s'exerce plus ils sont dans un complot d'état pour pouvoir se maintenir au pouvoir dans une telle situation il faut avoir des réponses, mais à la hauteur même du, de, de, de, de, de l'affront. dañu affronter dañu saaga ndey il faut que ñu fay fay boo xam comme ñoom nekkuñu ci yoon ñun duñ nekk ci yoon bis bu ñu bëggee ñun ñu nekk ci yoon ñoom nañ tegu ci yoon parce que ñoom li ñu def tegul ci yoon lu leen neex la def kon jiji ku gaaw a jooy nga ku dëgër fit nga ku mën a xeex nga ku bëgg Sénégal nga mais bu affaire bi situation bi tàngee rek sa xol tooy nga bëtt say bët jooy je te comprends comprendre naa la waaw xam nga yaay sama yaay sama adjoint waaw boo jooyee léeg sama xol day xaw a tooy te man xam nga sama xol gaaw tooy man xol weñ laa yor man sama xol dafa dëgër parce que Sénégal boo ko bëggee tabax il faut nga génne xol bi la yàlla may teg ko fee dem ki tëgg bi mu tëggal la xol weñ nga poosé ko man xolu weñ laa poosé man man lima joy lo yombul lima yengal yombul waaw man dama nek ku man machine la machine buy dox parce que noonu nga mën nek senegal bo boo nekkul machine mënoo ko yor ndax lo wax ku ne amna ci xalaat lo wax loolu ni ñoo fi dàq joxe ay conseil da ngay gëmm tëx muuma boko deful do len dimbali motax jigi leg leg bo joye da yengal motax ngay da bëgg nga taxaw deugër taxaw deugër ta dañuy ci sik sak day metti mais dañuy gagné Ousmane Sonko gagné na ba pare dañuy gagné réew mi mi ngi ci loxo loolu laa bëgg ngeen xam ko dañoo gagné ba pare ngeen tiit man li ma tiital du Macky Sall moo ma tiital li ma tiital mooy tiit gi ngeen tiit moo ma tiital ragal gi ngeen ragal ba yaakaar ne yéen bu ngeen jógee xeex dee loolu mooy sama njàqare ci yéen mais man sama problème du Macky Sall billahi xajuma ci Macky Sall bu ngeen ma déglu woon topp ma ñaari fan ma wàccee leen Sall mais da ngeen a àndul ak man ndax amu leen fit. moo tax ma bëgg ngeen am fit bu ngeen ma joxoon seen fit rek Macky Sall wàcc ñaari fan moom xam na ko xajuma ci Macky Sall man waaw xajuma ci Macky Sall ñaari fan ngeen ànd ak man ma wàcc Macky Sall mais nag naka lay def ba ngeen ànd ak man ñaari fan loolu mooy sama problème loolu mooy sama problème kon diaspora bi na ngeen commencé génn cinquante euros yi cent euros yi jëm kaw lu ngeen man na génn waxuma ay dix euros ki cinq euros parce que jiji mi koy jël problème la ci am ay 5 de euros, nga déplacer ko mu def ci problème yi dul jeex ci deug deug ba ay montant yu consistant au moins déplacement bi dem taxaw récupérer logistique de temps ak parce que cinq euros, ki diesel ci effort supplémentaire amul 50 euros nga lebi ko ko minimum 50 euros jëm kaw jox ko jiji mobiliser ñu bari solliciter ci actuellement Bignona booba ngeen gis am na ñoo xam ne ñu ngi ñuy sollicité jigi du ko wax man du ma ko mais dañ ko def ci suuf parce que man maa ne ko jiji am na loo xam ne buñ ko ñuy wax parce que bu ñu ko wax mën na yàq xeex bi te bu ñu ko wax man na sax dem ba suñu ay stratégie di feeñ mais léegi-léegi il faut que ñu xamal leen aussi na ñuy def lu baree bare bari ci suuf loo xam ne mënuñu ko wax ci ay yu baree bari bari yoo xam ne bu demee ba ci xeex yi ba toog da ngeen toog ñu taal live Jiji ak man yéen ñëpp ngeen toog ñu def bilan wu lépp wax na ba ñu tollee fii ba may wax ak yéen fii lii ak lii la ñu def day fekk ñu weesu ko ba Ousmane Sonko toog ci palais bi daañu defaat bilan yëpp léppay leer parce que Sénégal gu leen nañ lañ bëgg a tabax Sénégal gu jub Sénégal gu dëggu am leen confiance ci li ñuy def ñu intérêt ci leen wax loo xam ne lii ñuy wax ak yéen lii ñu leen di xeex seen xeex la yéen seen intérêt la du suñu intérêt ñun wallahi alazim numéro bi numéro Jiji la ku am numéro Jiji bi na ma ko dugalal ñu épinglé ma ko 01 xaw ma ñaata ñaata ñaata na ko dugal numéro Jiji ñëpp am nañ ko bés bu nekk ngeen woote ci Jiji live numéro boobu defe naa ñëpp am nañ ko je l'ai pas en tête yoruma ko en tête mais Jiji na ko dugal su fekkee mi ngi ci live bi ngeen épinglé ko Jiji te ñëpp mën a xool su fekkee Jiji da nga ci néew doole nga ut des gens de confiance koo wóolu aussi nga dugal ko ci xeex bi mu jàpp ci. ñu mën a mobiliser les efforts de guerre les moyens logistiques les moyens matériels les moyens financier les moyens humains yëpp ñu dugal ko dégg nga maam ñu ñu mën ko gérer ñu mën ko gérer xaaral ma ku ma mën a épingler donc numéro numéro numéro numéro numéro jiji bi ku ko mën a épingler numéro bi na naa moo nekk doon ci kaw. numéro baa ngi ci kaw numéro baa ngi noonu ci kaw ku ko mën a épingler rek épingler nañ ko noonu ci kaw yaakaar naa bu ngeen xoolee ci live bi ci kaw wala ci suuf ci kaw ci suuf numéro baa ngi noonu ku ci woo Djidji rek nga contribuer nga dugal euh, numéro yaakaar naa Europe mais ngeen def euh, indicatif bi plus 33 bi après ngeen génne zéro bi ci plus 33 6 voilà ngeen def ko épingle nañ ko ci kaw épingle nañ ko ci ci ci ci ci num tuddati bi épingle nañ ko donc ci euh, da ngay def 33 6 33 da ngay def da ngay def plus 33 wala 0033 641 02 15 04 ma bamtuwaat ko 0033 641 02 quinze zéro quatre ma ma baamtuwaat ko ñetti yoon zéro zéro trente trois six cent quarante et un zéro deux quinze zéro quatre mooy numéro Djidji képp ku bëgg contribuer ku bëgg a jàpp ci xeex bi ku bëgg a joxe te nekk ci diaspora bi. bëgg jàpp ci xeex boo xam ne bu ngeen ko joxee jiji dana ko àggale ci ñi nga xam ne ñoo nekk ci terrain bi di xeex ci ay seen seeni soxla parce que ñoom dañuy woo jiji ci suuf dañoo soxla lii dañoo soxla laa dañoo bëgg lii dañoo bëgg laa loolu yéen du ngeen ko yëg te war leen ko du lu ñuy wax ci live bu ñu ko wax ci live suñu noonu ñi ñuy xeexal dañuy xam fi ñu jëm donc dafa am xeexu suuf ak xeexu kaw yéen joxe leen rek waaye jiji moom xam na ñu koy woo xam na ñu muy waxal xam na li mu seq ak ñoom te loolu moo ci am solo l'essentiel mooy nañu am ndam te ñu am ndam insha allahu rabbi man dama noonu pare naa ko du ma wooti kenn mu joxe waaye ñi jekk ci kaso bi nga xam ne ñi ñu jàppale ci kaso bi ndegam ñoom ñu nekk ci kaso bi la seen yaram di xasan ñoom ndax liñ def Ousmane Sonko ña nga nekk ci kaso bi di jooy lu tax ñu dañoo bëggoon a génn ñun dañoo ñun lii mënuñu muñ yéen ñu nekk seen kër toog wallahi azim ñu nekk ci kaso yi seen yaram yaa ngi xasan ña jooy bëgg a daj ci kaso bi pour génn xeex ndax ñoom mënuñoo muñ ñu def yenn yi Ousmane ak li xew ci réew mi ña ngay bëtt bët di jooy ñëw mujj ne ma yow il faut nga woote ni ñu joxe xaalis ngeen jàppale a xeex parce que ñun suñu doon yàgg xasan pour xeex ñu téye ñu fii bu ñu génnoon xeex bi jeex na bu yàgg waaye ndegam ñoom ñi nekk ci kaso bi ñooy xalaat loolu waaye yéen ñi nekk ci a xaru ji ñun ñi nekk ci biti xaa ñun dañoo war a ñu nekk ci kaso yi gën ñoo bëgg a xeex ñoo waroon a tiit ñoom ñi a xam ne kaso du dara kaso du dara du dara ñoom ñi ci kaso yi tey ñoo bëgg a xeex xeex bi yéen ñi nekk ci biti ngeen taxaw lànk du ngeen ko xeex du gën ko xeex du gën jàppale ñu koy xeex gaa yi nañ nekk ay gor nag bu ñu rëccee bii xeex bu ñu ko ñàkkee baye boo Ousmane Sonko bàyyi Pastef nañu ko tas kenn ku ci nekk loo xam nga def ku nekk diaspora bi nga nekk diaspora bi ku nekk Sénégal nga takk préparé nekk ut gétt bu ñu lay takk nga nekk jaamu Macky Sall bu ngeen bàyyee mu sedd da ngeen nekk jaam daiman iman diaspora bi yéen bay bo ngeen ut bàmmeel diaspora bi ñu nek Sénégal bay boo ngi ay bammel ta tok xamna ay jaamu mag Sall ngey doon Ousmane Sonko waxon na len ko tok Ousmane Sonko ay waxam du waxi kesse ndax paré ngeen daf len ko laaj de ndax paré ngeen laaj len ko bu baax baax ngeen ne ko ndigal lañuy xaar mu ne tek ngeen dem ba jënd jamono ndax paré ngeen ngeen ne ko waaw lu mu wax ngeen ne waaw mu len buñ ko tambalé amul bayyi de amul dellu ginnaaw dañuy dem ba sës de ngeen ne ko nañu yéen ko ko waxon de ci lolé sukkandiku ba def li mu def jaar fi mu jaar bañ gi mu bañ ba lépp xew ngeen bëgg a dellu ginnaaw ne ko mbalee dañ la doon nax de waaye pare wu ñu fas ñëw yéenee xeex loolu ngeen bëgg a ji Ousmane Sonko loolu trahison la loolu mooy naafeq yi nga xam ne ñoo àndoon ak rasulullahi sallallahu alayhi wasallam nekk ay saxaabatul kiram waaye yàlla xam ne ko ne ko ci sam njaboot jii ñi la topp ci saxaaba yi am na ci ay saxaaba yoo xam ne ay naafeq lañu buñ dee safara lañ jëm xam xamal ko yonent bi wax yu ko ko bi xam ko mën a ni yonent bi amee woon ay nafaq ci ak njabotam nonu la Ousmane Sonko amé ay nafaq ci biir njabotam yàlla ñu ci yàlla musal yàlla buñ ci bok ñun amna ci du jeex waye ñun yàlla buñ ci bok ñàkk ci bok nak moy jóge dëggal sa bop jóg nek ci xex bi bu Ousmane Sonko di xex nga xex bu Ousmane Sonko tëdd nga xex bu nek hôpital ngay xex bu joge ngay xex xex bi doo ko bàyyi muk gis Sonko di xex ñak gis Sonko di xex lolu moy ñi nga xamne ñoy sahaba yi nga xamne ñoy sahaba yu dëgg yi ñi nga xamne bokku ñu ci sahaba naafeq génne leen li ngay wax yëpp ci prisonniers yi yi ngeen di bind yëpp maa ngi koy gis stratégie yi ñu yore bu ngeen ko xamoon wallahi di ngeen jëm woo jiji yónnee ko ay moyens li ngeen bëgg lu ci baree bare xaalis koy def parce que am na loo xam ne bu ñu ko bëggee organiser bëgg ko teg il faut que ñu am ay moyens ay logistique la xaalis a koy def il faut que ñu am xaalis pour mën a jënd logistique bi koy def li ngeen di bind yëpp gis naa ko lépp xam naa ko jëlul bind jëlul wax contribuer leen jox leen rek Macky Sall ay milliards la yor di xeex jënd ay armes jënd ay lacrymogène di corrompre juge yi di guerre juge yi di guerre Moussa Fall di guerre ñëpp jox Antoine Diome ko jor ñuy noos ay milliards la ñoré jënd seen ñëpp guerre nit ñi jox Youssou Ndour télé bi muy fenn jox El Hadj Ndiaye muy fenn ñëpp di fenn ay milliards yéen amul yeen 100 francs Mali ngeen bëgg xeex ak Macky Sall non il faut que diaspora bi financer combat bi diaspora bi moko wara xeex. ay millions lañ soxla ay centaine de millions lañ soxla pour yëkkati Macky Sall hi bu ngeen cotiser ba jii am 50 millions wala 100 millions tey jii Macky Sall ñaari fan mu may ñu ñaari fan Macky ay milliards la def bu yoron ben 50 millions mu am wala 100 millions ta loolu du dara ci diaspora bi 100 millions 50 millions c'est quoi diaspora bi yéen ñi may déglu c'est quoi lan la loolu loolu mooy lan dañu bëgg yëkëti Macky Sall ci ay sànni xeer doyul dañ ko bëgg yëkëti ci ay ñaxtu ay live doyul il nous faut dajale xaalis pour jëlé ko fi loolu kenn nit mënu ko wala boog ab sàcc lay doon voilà mais nag comme ñu sàcc ñun lu ñu lew doom la def ci xeex bi su ma defee nga def ku nekk def amuñu kersa na ñun mënuñu ko li ñu mën la ñuy def kenn ku ne li nga mën ngay def nit du fen boppam su ma defee li ma am nga def li nga am ku nekk def li nga am ñu am lu leew domb loo xam ne mën na fa yëkkati Macky Sall duñ ko téye ngeen xam Macky xam na ñoo ko gën a wëyu foofu gën koo bandi ëpp ko ay réseau foofu def leen li ma wax ngeen xool kon jiji xaw ma ndax mi ngi ci live bi alors c'est qui qui m'appelle encore kon jiji yi ngeen di bind yëpp <laughs> man am na yoo xam ne dama ko wax ci live waaw am na ci yoo xam ne nag waa dofuma quoi am na yoo xam ne voilà yéen nag vous êtes libre bu la neexee ngeen bind kenn ku nekk di bind mais li may def moom am na si ñoo xam ne seen i idée naa ko jël yéen ñiy bind am na ñoo xam ne seen i xalaat ak suñuy xalaat ñoo bokk ay xalaat waaye nag yéen mën ngeen koo bind mais ñu ko wax ci live waaw am na lu ñu ci jël am na loo xam ne duñu ko jël waaw na ko ñëpp xamee noonu waaw ndax lu ci nekk tamit bind bi nañ def lii nañ def lii yomb na de waaye nañ koy defee il faut nga am nit ñu koy def nit ñooñu il faut nga préparer leen psychologiquement il faut nga doter leen ay moyens logistique ay jëmtuwaay yoo xam ne mooy tax ñu moo a def loolee loolee xaalis a koy def du waxi kese de doo ko sàcc doo dem fenn loolu laal ñu la lii lay jar fii seen adduna bi loo fi yëkkati rek dafa am prix dafa am njëg bu ñu nanguwut a génne xaalis pour jënd ko duñ ko mën def duñ ko mëna def te xale yi pourtant jambar lañu macha allah xale yi bëgg nañu xeex jambar lañu paré nañu pour libérer réew mi ci mafia politico maraboutique bi fi nek les jeunes sont prêts à libérer ce pays mais diaspora bi ñom ñoy nelaw suñu diaspora bi ñoo ci ëpp doole mais doole gi dañuy nelaw dépense lañu yoni ay dëj ay gàmmoo ki màggal ak tiant waaye xeex pour Sénégal génn xaalis xalaatuñ ko loolu moy suñu problème aussi dañ def effort il faut qu'on fasse des efforts yooyu yëpp mën na nekk lu ngeen di wax rek mën naa nekk waaye loolu nag kenn du fa dem di fa dem noonu dafa am nooy da ngay waayal sa bopp da ngay tak takku ba ne kodd ut ay ut ay ay xànc takk ay téeri tuul waaw waxin la waaw getaru ba nga xam ne boo fa nee cëpp kenn du la dóor bal bu ñu dóoree bal bal bi day wàcc waxin la nag borom xel yi laay waxal waaw dafa am yoo xam ne <laughs> il faut nga waajoo ko sa bopp doo xëy rek dugg fenn fi dem di jaay sa bakkan dafa am noo koy defee voilà il faut nga il faut ay cumbukaay i faut nga am ay cumbukaay ah voilà ñi nga xam ne ñoo nekk Sénégal bëgg a contribuer ñooñu nañu woo jiji jigi dina leen wax ñan la ñuy woo ñan la ñuy jox ak tout ça ñu organiser ko te xam ne képp kuñ ci dugal tamit nga xam ne li ñuy xeex xeexu Sénégal ñu jubal dëggal leeral am Pastef taxaw temb te xam na intérêt général la te intérêt général kenn du ko yàq. voilà man loolu laa man la ko des man gestion baag gérer baag logistique ba yooyu man mënuma ko kenn ku nekk li nga xam ak li nga man waaw ndax loolu mooy àdduna kenn ku ne danga def li nga man ak li nga xam su ko defee bu ñu àndee rek mën a am ndam waaye bëgg a nekk fépp bëgg man lépp bëgg xam lépp bëgg a def lépp du sotti du sotti voilà donc riyaa woo leen jiji rek bu ngeen woowee jiji Il y a monté 5000 personnes, 5000 personnes y a 50 euros 5000 personnes, combien que 50 euros 5000 ah, personnes. Gaz pour moi là. Gaz 400 000 personnes l'ignirent pas Officiellement, tu consulat. 400 000 Sénégalais ne connaissent pas Sans compter les bi nationaux, ils sont dans la diaspora de façon frauduleuse parce qu'ils abusent de crédit. Quand ils font le que quand ils le montant, ils 500 000 Sénégalais qui Gaz pour 500 000. sénégalais yu nekk diaspora bi boo jëlee dix pour cent bi muy cinquante mille dix pour cent sénégalais yi muy cinquante mille nga jël cinq pour cent bi muy cinq mille sénégalais cinq pour cent cinq mille sénégalais ci diaspora bi ku nekk joxe benn cinquante euro rek mu jox la deux cent cinquante mille euros deux cent cinquante mille euros kooku boo ko téyee loo ci dolli rek mag sal takk ay bagaasam loo ci moom moo la gën a xam boo gisee muy asphyxier Pastef boo gisee muy jéem a yàq Kopar Express boo gisee mu jàpp gestionnaire Kopar Express bu tëj boo gisee mu jàpp Hannibal Djim tëj boo gisee ñu naan Akhenaton moo financé xaw ma ay forces spéciales xam nga Macky doful xam na ne xaalis c'est le nerf de la guerre moo tax dina fexe ba patriote du ñu am xaalis dina fexe ba lépp luy may Sonko xaalis ak patriote yi mu tëj robinet boobu parce que xam na ne xaalis moom buy am léegi mu abal ñu moom xam na ko doful doful de yéen ñeen fi nekk di nelaw buñu amul xaalis duñ ko fi jëlé mom xamna ko bu baaxa baaxa baax motax lépp lo xamna ñing koy tek ngir man ci am xaalis bu ko xexé dana fexe ba dajj ko ba dekk ko Kopar Express la nekk di xex ni parce que Kopar cagnotte yi ñuy monteel Pastef ak Ousmane Sonko 333 millions bobu moko té nelaw lolu da ko metté métti ba ma ngay enquête jàpp nañu ci gérer Kopar Express ba tëj ko ci kaso bi pour lan pour daaneel Kopar Express nga xamna ay sénégalais ñoko monté ay nit ñoo xamna bokku ñu ci benn parti ay ingénieur yi ay sénégalais yu bëgg Sénégal gis na kat ay western union fi amoon ak ay ria ay yoo xam ne tubaab yi ñoo ko moom ñoom ñu taxaw ci seen xarañteef seen xam-xam ba ne ñun ay sénégalais lañu ay africain lañu ay patriote lañu war a nekk taxawal loo xam ne du jaar ci tubaab yi ci transfert d'argent ñu taxawal Kopar Express def cagnotte ku feebar ñu dimbali la ku tabax jumaa ñu dimbali ku am dëj bi jafe-jafe gis ngeen ko par exprès Ousmane Sonko moom nekk benn politicien jaar fa moom it ne comme fa la ñun ñëpp jaar su amee ndimbal ju may woote naa ko fa dugal ku may dimbali dimbali ma waaye Ousmane Sonko ma ca dugg ak yenn politiciens nga xam ne dañu fay dajale ci xaalis yëpp Kopar Express mu jëm ci parti politique yi matul 3 pour cent li ëpp ci li ñuy dajale xaalis ci dem ci lay dem ci dimbalante lay dem ci tabax jàkk ki jumaa lay dem ak ci xam ne day amal njariñ askan wi waaye boo ci jël moo ci dem ci wàllu politique képp tax Macky Sall da koy dajji da koy tas da koy yàq ndax lan mel nam Ousmane Sonko mu ci mu ci dajale xaalis bu takk boo xam ne bëggul Ousmane Sonko am alal ndax xam na ne bu Ousmane Sonko amee alal nguuram day daanu gis ngeen ni mu bone te lii fay ko par Express yëpp mu jëm ci parti politique yi ci li muy liggéey ci dajale xaalis yëpp Kopar Express li ci sukkandiku li ciy génn jëm ci parti politique ci wàllu politique 3 pour cent la téeméer boo jël ñett moo ci dem ci politique la ca des yëpp day dem ci social dem ci ngénte gàmmu màggal tabax juma jàppalante dimbalante daayire ak yi ngeen xam ne moom ngeen dundee noonu la ñuy def solidarité di jàppalante def social ci biir plateforme bi Macky Sall na sama yoon nekkul ci lool 3 pour cent bi dem ci Ousmane Sonko moo ma gën a yitteel seen 97 pour cent bi ngeen di dimbalante seen biir lépp laay dajji parce que bëgguma ngeen am dara dama bëgg ngeen torox nekk ay làppato ma nekk ci seen kaw ma ak sama njaboot sama doom amul na yëkku nag Mansour fayer ay milliard ma len yor ay milliard yeen ku sëkkat ma dóor ku wax ma ray damay dajji copper express bëgguma ngeen dimbalante dama bëgg ngeen ndóole ndóole ndóole ba suma ma di doxantu ngeen dab ma na ma president amuy luñu ñu bu sama jabar gene di doxantu ngeen ñaan ko saaku ciep li la bëgg motax tax bëgguma ngeen dimbalante seen biir ñun ñoo leen wara jox dama bëgg ngeen top suñu ginnaaw dañu yelwaat loolu la Macky bëgg ci réew mi ngeen du ngeen loolu ak njaam la ak njaam la ak ku ko mënti wax ak njaam la waaw soxlawu ma 10 euros soxlawu ma 20 euros soxlawu ma 30 euros 50 euros jëm kaw laa soxla jox jox leen ma ko de ku mën ta def ci Sénégal 50 euros looy doyee Sénégal yaa ngi xaar gaz di xaar pétrole di xaar sa wàll di xaar suuf bëgg lépp ci réew mi te façon yéene ci Sénégal 50 euros loo yow yow Sénégal yow ban njëriñ nga amal Sénégal yéen ñu nekk ci diaspora bi yëpp man ngeen ko ku mënta joxe 50 euros takkal seen bagage ñibbi Sénégal defoo ci diaspora bi dara ku ko mënul defoo fi dara. ku mën a nekk diaspora bi ak foo mën a nekk te mënoo génn cinquante euros def ko ci xeex bi fa nga nekk defoo dara ñibbil wax day leer kon lii laa amoon na dinaa ko wax euh, bu laajee ci kanam ñu jógaat kon bu dara sedd nañu jamono bi xawma lu xew Dakar xawma lu xew ki tali yi xawma lu xew Bignona xawma lu xew fépp nañ ko mettre à jour na lépp taxaw bu kenn ñibbi bu kenn dellu na fépp boy na bloqué wu bu kenn dem ñu ne ñoom laa doon wax sànq avant suñu cible mooy ñi xañ di mooy décideurs yi politique gouverneurs yi préfet yi sous préfet yi magistrats yi yi ak yenn administration yi ñi nekk DAF ñi nekk DGE direction générale des élections ñi nekk Sénat Macky Sall Antoine Diome Moussa Fall ñooñu ñooy suñu ay noon ak magistrat yi ay Alioune Sall ay Suzanne Camara ak yenn ministres yi nekk yor seen làmmiñ di wax ay ñoom Mame Mbaye Niang ki madame Faye Sall ki sa famille Mansour Faye ak ay sëtam doomi ay jerbaatam yaayu Mansour Faye rakku doomi Mariam Faye Sall yi ñooñu ñooy suñu noon yi ñooñu ñoo sàcc alal réew mi ñooñu la ñuy waxal du police du gendarme lu dul ñu ñëw dox suñu diggante ñoom pour bañ ñu dal ci kaw ñii su boobaa nañu riposte dal ci seen kaw waaye ñoom ñu doon ñooma yàpp ñoo bokk quartier yi ñu fanaan ñoo bokk cere soow yi ñu lekk ñoo bokk ndox mu bon mi ñu naan ñoo bokk tëdd yi ñu tëdd ñoo bokk amuñu dara policiers yi gendarmerie ay baadoolo lañu amuñu dara ñu doon ñooma yàpp ak ñu nekk ci pénitentiaire les gardes pénitentiaires ñu ngi garder suñu prisonniers yi suñu frères patriotes yi nekk fa ñu garder leen ñu waaye bu ñu paree ñu ngi ñibbi ca banlieue ba amuñu luñu lekk seen salaire yi baaxul amuñu luñu lekk maa ngi leen di jaajëfal bu baax a baax ñoomit les gardes pénitentiaires seen liggéey metti na seen coono metti na amu leen dara ci réew mi xañ nañ leen lépp mën leen am suuf mën neen a am prêt mën leen tabax mën leen am oto da ngeen di lang ci car rapide yi bu nekk cent franc cent cinquante pour dem liggéeyi bu ngeen ñëwee di liggéey ay dix heures def ay relais ñu leen di fay ay euh, indemnité yu amul bopp amul genn kenn faluy leen risques yi ngeen di jël jafe-jafe yi nekk ci yéen les gardes pénitentiaires yéen gi nekk ci prison yéen laay waxal mereewu ma leen de au moins benn contentieux may xeex pour yéen la yéen yéen a tax xeex ci xeex bi ngeen bokk vous êtes des hommes de da ngeen jox ay ordre ngeen di exécuté waaye billahi wallahi watalahi li ñuy xeex suñu njariñ la mais yéen yéen a ngi parce que ci Sénégal ngeen bokk da ngeen a nekk sous commandement rek ñu comprendre ko waaw mais du doon suñu ay noon li ñuy xeex pour ñun la mais pour yéen la ndax su baaxee da ngeen xam ne wallahi li ñuy xeex jar naa xeex mais nag comprendre nañ ngeen nekk ci commandement mais bàyyi leen xel ne du ngeen suñuy noon du ñu seen noon du ñuy xeex dofu leen ñu ami xel ngeen yéen a ngi may déglu yéen ñi nekk Rebeuss yéen ñi nekk Sébikotane yéen ñi nekk ci prison yi nekk Sénégal yëpp te di ma déglu te nekk ay garde pénitentiaire di garde prisonniers yi yéen ñëpp xam ngeen ne lii may wax dëgg la te mooy dund leen lekku leen yéen ci ñi gën a sonn ci réew mi ngeen bokk ñi gën a dee ci réew mi ngeen bokk ñu ñu gën a xan ci réew mi ngeen bokk te mun leen ko sëqat mun leen ko wax waaye man Akhenaton maa leen koy waxal man ak yéen a bokk condition maa ngi yéen ñoo bokk fi ñu jëm ñoo bokk lu ñu bëgg néew ma nag ngeen teggi seen tànk néew ma ngeen lii néew ma ngeen laa waaye damaa bëgg ngeen xam ne ñun ñi di xex ak nguur gi fi nek je nek ay milliardaire jël souci ak aaki ko tabax ay immeuble milliard yo seen jeeg diko ko nappaaje dugg ci avion yi di wundal ci aduna bi seen passeport diplomatique di fajoo ji Paris di fajoo ji États-Unis di gundanda ci hôtel 5 étoiles di jël ay suite ci hôtel yi suite bo xamne 2 millions par jour ngay fay Macky Sall ki Amadou Sall ki Moussa Fall ki ñom buñu démé ci hôtel yi à l'étranger 2 millions lañuy fay par goudi dañ fa def une semaine imaginer une semaine 2 millions par goudi nga nga tukki guddi gu ne fay 2 millions ci hôtel bi nga nekk suite bi moom la ñoom Macky Sall ki ñoom Antoine Diome ki ñoom Dior Diagne ki ñoom Moussa Fall ki ñoom Alioune Sall ki ñoom ñii di wax ñoom ñi naan ay ay ay ñoom Mansour Faye ñoom ñi naan xeex xeex xeex ñoom ñu leen di jàppaloo ñoom bu ñu demee à l'étranger hôtel yi ñuy nekk suite yi ak sen saga yi 2 millions 3000 euros la ñuy fay par par nekk dans les grands palaces ci ay palace du sax nekk ci ay hôtel ci ay palaces yow garde bi est-ce que xam nga loolu. garde pénitentiaire bi garde prisonnier yi nga xamne ñoy xex pour deug taxaw pour le mi delu ci mi nga jot ci sa yow garde pénitentiaire bi est-ce que xam nga ki la que xalé yi fofu di la ko garde ak Mariam ak Mansour Antoine Diome ki Moussa Fall ak ñom ñi ci bokk ñepp bu ñu rew hôtel yi ñi dal hôtel yi ay palace la ay suite lay un million deux millions trois millions la fay par goudi ak seen est que xam ngeen loolu yow policier bi sànni lacrymogène bi nga xam ne saa soo sànnee benn lacrymogène soixante cinq mille francs CFA nga sànni mu tàkk saxaar dugg ci say noon say mbokk ñu saxaar ko pour lan pour aar Mansour fay bu yor ay multimilliardaire aar Macky Sall bu sàcc say milliards aar Marème Faye bu sàcc say milliards ñu teg la nag ci diggante ñoom ak askan wi pour que bu askan wi da ngay jublu si ñoom pour ñu laaj leen suñu ay milliards ñu ñu la yow ne la xeexal ak dóor leen lacrymogène reyante ak ñoom bu dee waree am yow policier bi gendarme bi yow garde pénitentiaire bi yow yaa war a njëkk balaa Marème Faye Sall dee yaa war a njëkk a dee balaa Macky Sall dee yow yaa war a njëkk a dee balaa Alioune Sall di dee yaa war a njëkk a balaa Amadou Sall doomu Macky Sall di yaa war a njëkk a dee balaa bala alun Sall bala Antoine Diome balaa Mame Mbaye Niang bala ñoo dee yow policier bi yow gendarme bi yow garde pénitentiaire bi nga xam ne amoo cent mille wala cent cinquante par weer yow yaa war a njëkk bu ko defee nag ñoom ñuy soog a dee waaye ñoom waruñu laa njëkk a jamono boobu nag ñoom waaye bu alal ji ñëwee xaalis bi ñëw wala ñu sàcc alal réew mi yow doo ci mos waaye bu dee ñëwee ñu jox la ko bu jafe-jafe ñëwee ñu jox la bu coono ñëwee ñu la ca kanam waaye bu séddoo ay milliards ñëwee ñu dugal la ci fi ñuy takk xar yi takk la fex ba nga ne code de neew xar ci gétt gët bala fot jël milliard def seen i génn dem seen yoon bu ñu génnee dem seen yoon ma génn ne wuup sàccoo jàpp leen ñu woo yow mi ñu takkoon ci gétt gi yow policier bi gendarmerie bi na dama jàpp yóbbu ci kaso bi parce que mi ngi naan ma wuub sàccoo te wuru maay wax sàccoo benn ordre dong lañ lay jox te ordre bi c'est pas légal lu dul bëgg a protéger seen bopp nga pamti pam ma duma ma takk ma takk ma lacrymogène dem tëj ma ci kaso bi ci lan salaire cent mille cent cinquante mille deux cent mille ndax yaa ngi xalaat yow policier bi ndax yaa ngi xalaat yow gendarme bi ndax yaa ngi xalaat yow garde pénitentiaire bi ndax yaa ngi xalaat waaw xanaa du yaay xëy yow ñibbi front de terre ci seen tuddi boobu nga xam ne seen seng yëpp fa nekk ay seng ki mu mel ne da nga maam kaafu ganaar xanaa du yéen yéen a tudd foofu yéen les garde présidentielle lii yéen les gendarme xam ngeen fu Moussa Fall dëkk xam ngeen immeuble am Sénégal gis ngeen toolu Moussa Fall milliards fa nek ay ay nag ak ay toolu Moussa Fall xana muskil fa dem yéen lay yëkkati di ko yóbbu ngeen koy liggéey ci tool ba gratuitement état di ko fay ay milliards yoo nekk ci toolu Moussa Fall immeuble yi mu am ay milliards la xam ngeen loolu yéen xana yëgu leen loolu yéen gendarmerie police yi yéen xana yëgu leen di Antoine Diome yore ci alal yëgu leen di Jodia Diar ci alal yëgu leen ci Bokar Yàgg lim mu ci alal yéen xana yeen colonel yi ñi yónni ñi brutaliser di dóor xana yëgu leen li ñu ci alal yéen subalterne yéen les petits policiers 100000 francs so francs sanni lacrymogène lacrymogène ñaar boko ci sànnee sanni nga sa salaire ñaari lacrymogène moy sa salaire xana bu ngeen koy sanni sen xel du dem sen salaire yi sen payoor yi bu ngeen noppé sonn bay bëgg a dugg ci car yi fan yëmbal ñibi fan keur massage ñibi fan parcelle te fi ngeen ñibi yépp ay locataire ngeen fa da ngeen fay luwaas bi yéen amu leen keur ndax bu ñu dagg suuf si di jox Aline Sall diko dagg di jox marel di ko dagg di jox Antoine di ko dagg di jox Mansour di ko dagg seen biir di ko jox ku leen neex di ko jox serigne ci yéen ñi nga xam ne yéen yéen ay nooy lacrymogène yi yéen a leen di xeexal yéen a leen di deewal yéen yéen kenn du leen seen ana seen i kër da ngaa mës a gis Sénégal fu ñu dagg suuf na cité police police yi lañ jox ay suuf ñu tabax am ngeen ko yéen police am ngeen cité police da ngaa mës a gis fu ñu dagg suuf Sénégal na cité gendarmerie dagg ay suuf ci état bu mu moom maasale ko defal ko ba mu baax dagg ko ay suuf ay parcelle jox ko gendarmerie da ngeen ko mës a gis da ngeen a mës a gis fu ñu dagg ay suuf ba jox policier da ngeen a mës a gis fu ñu dagg ay suuf ba jox ay garde pénitentiaire gis naa ci benn Grand Yoff ca kaw côté Liberté benn gisuma ci ñaar waaye fu ñu dagg suuf ki Sénégal magistrat yi am nañ ci fu ñu dagg suuf ki Sénégal sëriñ si am nañ ci fu ñu dagg suuf ci Sénégal politiciens yi am nañ dañ koy séddoo ñoom ñoom dañoo am ay quota mais yéen amu leen quota te yéen yéenay xeex yéen la ñuy jël dóor ko ci kaw askan wi yéen dañ leen di xañ di xañ askan wi yéen nag askan wi yëpp da ngeen ñàkk waa man naka ngeen di xeexee ci seen biir te yéen ñaar yéen a bokk soor yow policier bi yow gendarme bi yow sénégalais bi yéen a bokk demin yéen la ñuy xañ ba noppi boole leen ngeen di reyante ñi leen xañ taxaw fële taal seen i climatiseur nekk seen i kër ou seen njaboot ngeen toog ca buntu ba di leen garder seen climatiseur yi tourné bu ñu génnee seen oto yi climatiseur yi tourné xar yi di leen romb wàjj yi dugg ci kër yi. pomme yeeg banaana yeeg dugg ci kër yi xale yu xees yi dugg ci kër yi seen oto yi V12 yeeg dugg ci kër yi lépp lu ñëw yéen police yi gendarmerie ngeen toog ca buntu kër ga muy tàng muy taw yooyu guddi di leen mat yéen bu ngeen toogee ci biti surtout ñu nekk yoo fekk almadi yéen yoo yaa ngi leen di bëgg a rey nelawu leen guddi nelawu leen bëccëg bu ngeen noppee ñu leen ku leen remplace tey bu leen remplacé ngeen ñibbi kër Massar locataire ngeen fa nekk bu ngeen defee ñu teg leen seen ceebu ñebe bu fatt te rek du fatt ndax ceebu ñebe leen ko ngeen lekk amu leen dara jamono boobu yéen a ngi bàyyi ay miche yi bàyyi ay wàjji bàyyi lu nekk ci seen frigo yi ñoom te seen alal lañ ko duyee ba fees wax yow nga bokk condition bi ngay dund yow sa ceebu ñebbe ak sa cereg soo booy lekk guddi Kër Masar nga bokk koog waa Kër Masar bokk koog waa Pikine ki Caaroy bokk ko waa Parcelles Assainies bokk koog ñi nekk ci réew mi ñëpp ngeen bokk condition yi ngeen di dundi boo feebaree yéen a bokk même condition yéen a bokk même parapet yi yéen a bokk marché bi yéen a bokk jàkk yi yéen a bokk quartier yi yéen a bokk dundin yi yéen a bokk lekk gu bon gi yéen a bokk ndóol waaye yéen ngeen war a ànd nekk solidaire ngeen di xeexante ci seen biir parce que ki leen xañ ngeen dund moom moo dox ci seen diggante ba leen moo sàcc alal ji xañ la ko yow policier bi ak gendarme bi moo ko sàcc xañ ko sénégalais bi sénégalais bi jóg di fippu ñu ne yow policier xam ne yow ci ñun xañ nga bokk jógal dox suñu diggante ñi ngir ñu ko foo ko teg est-ce que yaa ngi xalaat est que yaa ngi xalaat est-ce damay laaj kon delloo si leen seen xel ngeen di xalaat bu baax a baax ci dogal yi ñu di jox te teguwul fenn lu dul aar seen bakkan ñoom ñu koy jox. rëccal seen alal ju sàcc ñoom ñi nga xam ne ñoo ak bañ ko àgg ci ñoom ba suñu alal képp lañ ko teg waaye du ab ndogal bu légal du dogal boo xam war nañ koo appliquer dogal ne war nañ koo jëfee lànk leen face à un ordre illégal on ne s'exécute pas nit bu nekkee armée police gendarmerie ñu jox ko dogal boo xam ne ci yoon du ko du ko takk leen seen fiti ngeen taxaw ñu kon li laa doon wax bu laajee ñu dikkaat ñu dikkaat ji ji xam naa dina ñëw ci kanam wax ak yéen gën leen a làbbali gën a wax ak yéen gën a sooñu waate di jaajëfal encore une fois waa Bignona waa Saint-Louis waa Kër Massar ak ñenn ci waa Dakar yi ak waa Tëngéej waa Rufisque Bargny ñu ngi leen jaajëfal waa Mbacke Bawol jaa leen jëf Mbacke ak Touba jaa leen jëf gàcce ngalam jeexagul nag de ñu ngi ci bu leen teggi seen tànk bu kenn bàyyi. buumug notel gi njam gi nekk ci réew mi lañu dakkal yéen commerçant yi nekk Touba ñu du ngeen jaay te yéen dañ leen woo ba ngeen ñëw ñu dagal leen ay place ngeen dagg ay place di jóg di daanu taaba taaba ba taxaw am ñoo xam ne xëy ñu gontu ña nga toog fañ toog toog muy dox ci li ngeen di liggéey ci lañu dund ñoom ñu xëy ba mu neex leen ñu ne dañuy daj yépp sànni ci àll ba acca génn averti ñu ñagu ñu seen alal ñagu am amna loo xam ne ab jullit du ko def kuy liggéey kenn du yàq alalam sa islam dafa bañ alal ju yàqu diine moo njëkk a bañ loolu nit bu yoree alalam di ci liggéey te nga am nekk ci léppam dignité nekk ci wala nga ko yëkkati di ko daggi da koy pareel waxtaan ak moom utal ko feneen foo xam ne daañu mën a yëkkati alal ji yóbbu ko foofee ngeen diisoo ba ba d'accord fit na bañ a am alal ji bañ a yàqu alal ju lew kenn du ko yàq commerçant bi nekk di taaba taaba ci marché bi nga yëkkati ko sànni ci àll ba toog fi mu dox joxe ay ndogal ay ñun ñu violent ñu yow loolu dëgg yoon du diine du àdduna képp ku leen ko def na ngeen ko xeex ak nu mën a sant ak fu ndogal bi mën a jógee xeex leen ko ndax du dëgg réew mi liggéey ñu koy tabax mënuñoo nekk di exécuter ay ndigal yoo xam ne ñu ko joxe liggéey ñu kii liggéey yamula ku dul liggéey kii liggéey kii dul liggéey mënu koo ëpp solo ci réew mi bay jël ay dogal yoo xam ne dañu ko jël di ko teg ci kaw kii liggéey kii liggéey moo ëpp doole ku dul liggéey kii liggéey moo man ki liggéeyul kii liggéey moo ëpp cër ci yàlla kii liggéey moo ëpp cër ci réew mi kon ki liggéeyul mënta toog fa mu toog ne nangu ndax mbooloo mu ko topp muy joxe ay ndogal naan toj leen dajji leen ci loo xam ne tegu ko fenn lu ci bakkanam parce que yéen a ko ko may yéen a ko may mu ne nangu ne picc a toccal ci ab tàgg di ko xool gerte kemb laay lekk ki am pepp laay sàq mais yéen a ko may yéen taalibe mais bu ngeen amoon fulla kenn du yàq seen liggéey kuy liggéey liggéey di farata liggéey farata la bokku la ku toog muy dox kooku liggéeyul nan toj leen daj leen amul fenn loolu lépp ay mbuy mi jaam la yoo xam ne dañ koy dog incha allah parce que li ñuy xeex du Macky Sall rek de ak tappale yi nekk ci yi nekk ci réew mi njaayam doole gi jël nit jàpp leen ay jaam ay esclave yaakaar na yaa leen gën parce que da ngaa am sant bi di sa papa wala di woy sa maam ay tappale la ànd nawla la ñu wax ci dëgg ci loolu la sëriñ Tuubaa nekkoon ci loolu la Seydi Hadj Maalik nekkoon mag ñu baax ñi ñuy wax ñëpp dañoo nawloo woon seen ñi leen toppoon jàppee wuñu leen woon ay jaam di tojoo ko dajji Sëriñ Tuubaa bu doon tojoo ko dajji kenn du ko fekk si Seydi Hadj Maalik bu doon tojoo ko ko fekk si fi nekk ñu nekk ay tappale la toj ak dajji bokku ci yoonu murit toj ak dajji bokku ci yoonu tariixa Cheikh toj ak dajji bokku ci yoonu xaadiriya képp ku tojoo ko dajji dangaa juux si dangaa bokk si dangaa buuxante waaye xamoo li nga nekk lan la ay tappale la xeex leen kon jàll jëf yéen yëpp ba ci kanam na tàng na tàng timis gaa ngi dugg si amul guddi amul bëccëg amul timis amul dama sonni na bar na bar na tàng bloqué fépp amul liggéeyi amul dem dikk autoroute bi baare route de Rufisque bi baare VDN bi baare route euh, bi jëm Saint-Louis bi baare route bi jëm Ziguinchor bare Kaolack baare fépp baare bu kenn dem bu kenn dikk fépp baare taal ciblé wax policiers yi taxu ñoo jóg gendarmerie yi taxu ñoo jóg euh, nervi yi tax ñoo jóg lu dul lu dul bu ñu demee si ñi nga xam ne ñoo ñu tax a jog te mooy ñi ñu xañ suñu dund mooy ñi nekk ci bopp réew mi ànd ak Macky Sall xam ngeen ne du ma fi nekk di leen lim ndax su ma limee du jeex xam ngeen ne ñoom ñëpp ñi nekk ci ñu nekk ànd ak Macky Sall ay troisième mandat seen tappale yooyu te ñoom ñëpp ay sàcc lañ ñoom ñëpp ay sàcc lañ amu ko am xel mu mën a liggéey cent franc alal ji ñu yor yëpp alalu askan wi la xammee ngeen leen xam ngeen leen ñooñu ñooy suñu ay cible potentiel ci kaw ñooñu lañu jëm ku dox ñu diggante ñoom nag bañ ñu àgg ci ñoom ñu jaamaloñoo ak yow mooy policier mooy gendarme mooy nervi waaye ñoom ñett ñi taxu ñun ñoo jóg ñun xeexuñoo ñoom parce que ñooñu sàcc ñu suñu alal ñooñu ak ñun ñoo yem nervi bokk fi ñuy fanaan policier bi ñoo bokk fi ñuy fanaan gendarme bi ak ñun ñoo bokk fi ñuy fanaan ñun ñoo bokk ay conditions de vie ñun ñunu neen la ñu jaxase ñu nag ñu suñu biir ñoom ñi nga xam ne ñoo sàcc alal ji nag taxaw fële ñoom bokk seen i jëmtuwaay bokk seen i fréquentation bokk seen i lekk bokk fi ñuy dem bokk seen i caga seen i sangare seen i whisky seen i cocaïne seeni i milliards dugg ci avion yi jet privé wër adduna bi seen i passeport diplomatique ñoom ña nga fee seen ëtt ab ma du ci bokk ab police du ci bokk ab lapato du ci bokk ab nervi du ci bokk waaye bu ñu demee ba seen teraanga yooyu nar a am jafe-jafe dañuy dem ca lapoto ya police bi ma bi ak nervi bi jël leen ne leen kaa leen xeexal ñu. ñun ñu jox leen macaat parce que ay pauvre lañu ñu kaa leen xeexal ñu ñu neexal leen xeexal leen ñu ngir ñu mën a mucc ñu neexal leen len leen loolu lànk leen ko pourquoi loolu warut am du dëgg du yoon kon ba kanam gars yi di leen jaajëfal yéen ñëpp di leen encouragé di wax le combat continue le combat continue nañ ko gagné ba pare bu kenn bàyyi bu kenn teggi voilà naa ci ñëwaat ci kanam su ma amee gëpp ñu yaatal incha allah jaa leen jëf.